mbokki al bayaan wa tabyin ginnaaw bu sante yàlla julli ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi am mbégte ak kontaante ci àndaat ak yéen ci suñu dar ci kaasiful albaas tey nag ñu ngi war a ànd ci page ñu ngi war a dooree ci page cent xam ngeen ni jeexaloon nañ liñ tuddee kaasiful albas ba dugg ci tasyil bi suñu dàtt tey nag mooy tolloog suñu fanweereelu dars ak ñaar Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu fi ruuxil bayaan root na ci téere tafsirul quran boobu tudd ruuxul bayaan maa nafquhu waalam xamal ni anna min assaalikiin am na ñenn ci ñi nga xam ne ñoom ñooy woy soobu yi mu ne am na ñenn ci ñi nga xam ne woy soobu lañ suluk nag buñ ko waxee mooy topp yoon woo xam ne fim la jëmale mooy ci sa borom subhaanahu wa moo xam nag nga sooboo ko ci benn ci anam yii ma lay bëgg tuddal benn di xalaat ci mbindeef ak yàlla ba mu yeggale la ci yàlla tafakkaru fi xalqillah wala tafakkaru fi llahi fa tahliku baatu xalaak foofu mooy fanaaw wala boog ngay xalaat ci sa bopp ba mu yeggale la ci yàlla wa fi anfusikum afala tubsirun wala boob nga nekk ci sikar baat bu sell bi laa ilaha illallah wala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa wala boog nga sóobu ci yoonu maqaamaatu diin ak salaata nga fexe ba jëmbat ci sa bopp juróom-ñeenti manazil yooyu maqaamaatu diin ëmb ba yegg ci yàlla ah. wala boog nga soobu ci tariqa tiijaan jël wirdu bi ngir yegg ci yàlla kon soobuwaay bëri na moo tax nag képp ku soobu ci benn ci yoon yi yàgg ci lool te amoo fat xoolaatal sa bopp moo tax mu ne waalam xamal ni anna min asalikin am na ci ñenn ñi nga xam ne ñooy woy soobu yi man yaqtawul aqabaat ñuy dagg seeni gaa gaar gaar yi mooy kiiraay wa yaxriqul xujub di lakk seeni kiiraay fi sabina sana ci juróom ñaar fukki at wa minhum am na ci woy soobu yi ñoo xam ne man yaqtawaha bi isrina sana ñuy dagg seeni kiiraay ñaar fukki fan ci ñaar fukki at wa minhum am na ci ñoo xam ne yaxsulu lahu fi sana ci benn at dong mën nañ ci dagg kiiraay wa minhum am na ci ñoo xam ne man yaqta'uha fi shahr ñu koy dagg ci benn weer bal fi jam'ihi bal fi saa am na ñoo xam ne ci semaine am ñoo xam ne ci bis ci ci ci ci benn semaine ci benn bis am na sax ñoo xam ne ci waxtu loolu lu am la ñu ngi koy gis rawatina nag ci jamono bi hatta inna minhum man tahsulu lahu fi lahza am na ci ñoo xam ne sax dañuy jël awraat tarbiya bi ci genneeku biñ ko jëlee rek am fatu loolu nag mu ngi nekk bi tawfiqin xaas ci dëppale boo xam ne bu leen yàlla jagleel la wa inaayatin saabiqa ak coobareeg yàlla bu jiitu ci ñoom te en général ñu mel noonu ñooy gën a xam yàlla seen tarbiya nu mu yombee noonu la ñuy xam yàlla ama tazkur saharata firawn maa kaana muddatuhum illa lahza xanaa doo fàttaliku njabarkatu firawna yi seen diirab tarbiya ay jëndeeku rek xaytu ra'aw mujizata Muusa bañ gisee kéemtaan ak Muusa rek ci lañ bi rabbil alamin gëm nañ boroom bindeef yi te boo ne baatu gëm mooy baatu seede maanaam seedu nañ yàlla mi moom bindeef yi kon fii آمنا برب العالمين نيدانيو أم شهود فأبصروا الطريق نيجي وقطعوه حقه وقطعوه حقه يزق حقا فصاروا من ساعة إلى ساعة نيو مجو نكي نيو خمني ci digënté waxtu ak waxtu nañ ci yegg وحكى أن إبراهيم بن الأدهم نتلنا إبراهيم بن الأدهم سهلان كلا بدلوكي قرن الثاني كان على ما كان عليه من أمر الدنيا ده نكون رك لم نكتم فعدل عن ذلك مبايل وقصد طريق الحق جبلنا نتيون الدق فلم يكن إلا مقدار سيره من بلح إلى آه، مروي مروي آه، الروض jublu maanaam dëggmal bi mu dëgg dëggmal yàlla diire bi nekkul lu duut dox bi mu dox diggante balaf ba marwi zawt xata saara bi xaytu asaara ila rajulin saqata min alqantara fi lma xata saara ba mujj bi xaytu asaara ba junju ila rajulin ci waajoo xam ne saqata rot min alqantarati min alqantarati ما الكثير هناك أن قف فوقف فوقف الرجل مكانه آه، في الهواء فتخلص من صار بحيث أسار إلى رجل دمنا صحبي جنج بين واي سقط من القنطرة في الماء دفع رد دفا دانو تي بون بي واتي تي ndox mu bëri hunaka an qif hunalika foofu le de lañ ne ko an yeey qif taxawal fa waqafa rajul waa ji taxaw makaanahu fil hawa ba muy taxaw nag muy taxaw ci bërëbam ci ngelaw gi fataxallasa mu daal di sumneeku ba set ci leneen lum nekkoon lu duut lii wa inna rabiata al adawiya al basriya soxna suba soosuñuy wax rabi'at al adawiya nga xamni jaar-jaaram su ndek dara baxu ci way mu muju ci yàlla kanat amatan kabira ben jeber la won bu mag yutaafu biha fi suq al basra ni ko daan wërale ci luumaay basra la yarabu fiha ahadun li fi sinniha ken beugatu ko lu doo ndax màgget gi màgget فرحمها بعض التجار كان kenn commerçant yi yërëm ko fastaraha mu jënde ko bi mi ati dirhamin ci téméri dara fa ataqaha mu gorel ko fa xtaarati tariqa alxaq mu tànn yoonab deug fa aqbalat ala al ibada mu jublu jaamu yàlla fa ma tammat laha sana amul at hatta zaraha qira'at al-basra lbasra al-basra wa ulama'uha li azami manzilatiha defu ci at lu dul ni njàngkatu basra yi ak seen borom xam-xam yep ñëw diko ko ziyaare ndax darajaam bu kawe wa ama alladi lam tasbiq lahu linaaya ki nga xam ne nag coobare yàlla jiituwut ci moom wala tawajjahat lahu sa coobare yàlla jubluwu ko walam yuaamil bil fadli sa jëflantewut ak moom ci ngëneelam fa yuwakkil ila nafsihi na sukkandiku ci boppam ربما يبقى في شعب من عقبة واحدة من العقبات sabiina sana mu ne amaan na sax bu sukkandikoo ci boppam yooyu nga xam ne ñooy xijaab yi koy gaar juróom-ñaar fukki at yu ne mu dagg ci benn te sax wala yaqtawa du ko dagg waaye kam yasiixu wa kam yasrux ma azlama hada tariq ak bëri lu ñuy yuuxu ñuy sóobu te teguñ ko ci yoon li ñuy yuuxoo ka jooy naan ak lëndëm bi la yoon wa ashkala ak ak compliqué bi la yoon wa aatara hada al amr mbir mbii ka jafe wa aadalahu mbir mii moo ko tënku fa in qulta mu ne su fekkee da nga wax ni lama lima lima xtasa hada bi tawfiqi al xaas wa xarama hada lu tax yàlla jagleel ñii ci ak dëppale bu bu spécial bu buñ ko jagoo mu xañ ñi ci des wa kilahuma mustarikaani fi rifqati al ubudiya te ñoom ñaan ñëpp ñoo yem ci buum ak njaam fa inda hada sual ci boobu la laaj nag تنادى من سرادق الجلال أن ألزم الأدب وأعرف سر الربوبية وحقة العبودية إلى يالا دي ووتيتي تجلي جلالي يتوم إيه نغا تقوك لغا خمنا موي تجين تنغا خم بوتك ربوبيته أك دك دك عبوديته فإنه لا يسأل عما يفعل يالا كندك ولا دمي دك وهم يسألون اللي في نك ديس نالين لك ذلك تقدير العزيز العليم بنن لا يلا mooy lii mooy dogalab yàlla ki nga xam ne mooy aji xarañ maanaam aji not ci nguuram di aji eh, xam lépp la beneen laaya inna al fadla bi yadillah yuti man yasha ngëneel ci loxol yàlla la ne moo koy jox ko soob wallahu dul fadlil azim yàlla mooy borom ngëneel bu màgg bàyyi ne allahumma jaalna mimman sabaqat lahu al inaya yàlla ñu yàlla boole ci nga xam ne coobareem jiitu na ci ñoom وتقدم في حقه التوفيق مجيدا تسن حق أكدبل وقمنا الخاص من جغول والهداية أكجب آمين يا رب العالمين وقال الشيخ زروق في تأسيس القواعد الشيخ زروق رضي الله عنه وهنا في تأسيس القواعد نه أخذ العلم والعمل عن يعني المشايخ أتم من أخذه آه، دونهم من جل خم خم ak jëfee ko ci ak jëfee xam-xam ci borom ci ci sëriñ si moo gën a mat nga jëlee ko ci keneen ku duur ñoom ñu na lu tax mu ne yàlla dafa wax ci alquran ne bal huwa ayatum bayinatun fi suduri alladina utul ilm mbir mi ay kaawteef la yu jël ci dënnu góor yàlla yi nga xam ne yàlla jox na leen xam-xam waxaan na feneen ne wattabi sabila man anaaba ilayya nga topp yoonab ki nga xam ne moo dellu si man kooku mooy aji matee sa jamono fa لازمة المشيخة فسيما والصحابة أخذوا عنه عليه الصلاة والسلام فرنك داري صحفي صحابة يجليك نيوم وأخذ منام فرنك جليك صحابة صحابة يجليك يونانتو يونانتو صلى الله عليه وسلم جليج جبريل واتبع إشارته طب أجنجم إلى أن يكون نبيا بم نك يوننتو نك عبد لا نبيا ملكا نك يوننتو بو خمنا ملكا وأخذ التابعون عن الصحابة تابعون جليج الصحابة فكان لكل أتباع يخصونه به كان كتي نك سم طب دادان جاغو لانا جاغو كابن سيرين وابن المسيب والأعرج من ابن سيرين ابن المسيب أك أعرج sësoon ci ki nga xam ne mooy abu hurayra lañ jëloon taawus wahb mujahid ñoom ñi ngi den jëlee ci ibnu abbas ak ñeneen ak ñeneen wa ama al ilmu wala amal xam-xam ak jëfee xam-xam nag fa axuduhu jëliyun fi ma zukir maanaam fa axuduhu jël ko jëliyun lu feeñ la fi ma zukir ci liñ tudd ci xeetu alquran ak hadis wa ama al ifadatu bil himma jëriñu nag ci yitte wal xaal ak melokaan faqad ashara ilayha انس انس بن مالك جنجو نكو سي وخام ما نفضنا التراب ما نفضنا التراب عن ايدينا من دفنه عليه الصلاة والسلام حتى أنكرنا قلوبنا من سولني يونان تبي صلى الله عليه وسلم لدود ما نم جف جوج نيرون دفن قل إنكارنا فأبان رؤية سخفه الكريم كانت نافعة لهم في قلوبهم مليرا gis jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na leen jëriñ ci seen xol ndax moo leen daan tarqiya wal ulama wu borom xam-xam yi nag warasatul anbiya ñoo doon yonti xaalan ci xaalu maalan ak ci delluwaay wa in lam yu daanu fil manzila doon dëkk sax jege wuñ leen ci manzila ci ci daraja wa huwa al aslu fi al qurbi loolu mooy cosaan ci sàkku aji jege ju min allahi ci yàlla fil jumla ci jumla boobu iz man taxaqaqa bi xaalatin lam yaxlu xaadiruhu minha falidalik ndax iz li mbir ta mbir man taxaqaqa kenn képp koo xam ne dëggu na bi xaalatin ci melo lam yaxlu xaadiruhu minha maanaam ñi teew ak moom duñ mucc ci xaal boobu falidalika ama ah, amara bi sohbati salihin wala umira digleef nañ bi sohbati salihin ci àndoog ñi nga xam ne ñooy nit ñu baax ñi wa naha an sohbati